waaw am na juddu yor borom 900000 am na fan la amee Sénégal lan moo ko indi 2012 ba léegi ñu yor nguur yoo xam ne dañoo noos ba noosal xale yi nga xam ne juddooguñ xale bu judd rek di nga fekk ne nguur gi noos na ci sa wàll 900000 yoo nga xam ne bor la ku juddoo Qatar day juddu fekk état bi dencal na ko ay millions. ku juddoo Sénégal nag day fekk état bi dencal na ko boru 900000 xam na à partir tey imaam yi ku ku tuddati xale boo tiflee ci nopp ba pare na ko wax ne ko am nga fi boru 900000 bu lay xaar pour xale bi gën a góorgóorlu. Macky Sall ak nguuram mosuñoo nekk ay patriote loolu laa bëgg ngeen xam ko dañu meloon ni ay jinax rek yu ñu tëj ci néegu gerte ñuy yàq di foo di def lu leen saf. moo tax affaire yaa ngi nii léegi leer na léegi ñooñu nag nekk ci opposition bi ñooñu war nga leen jëlaat naan da leen di yóbbu assemblée national ñi nga xam ne ñoo toroxal sénégalais yi ba benn bopp sénégalais bu ne war a fay 900000 fu ñu koy jëlee ku lekkul naanut lu mu koy kiiwee bu ñu jógee naan réew mi daa dëgër réew mi daa dëgër réew mi dafa jomaay te yéen yéen a dëgëral réew mi ndax yéen ay patriote ndax seen mal gouvernance yàq alalu réew mi sacrifier ay génération pour lan alalu àddina kon xam ngeen ni Macky Sall musul nekk patriote àndul ak tamit ku nekk patriote mag Sall boo nekkee patriote sax dalay dàq parce que soxlawul loolu ay luubalkat la soxlawoon ak ay bandi maanaam ay bandi ñoo ñu jiite woon te lii wane na ko ñii nañ leen sanctionné bu baax a baax a baax.